asalaamaaleykum man Mbaye Samb chef du village Bangaaj maay wax tuuti ci histoire Bangaaj cosaan li ba fii nu toll tey Thiès 24 Thiès 24 ci kilifteefu Mbaye Samb waaw maanaam li may fi may jëkke mooy Bangaaj maam Aldemba Samb moo ko sanc maam Aldemba mm, mu ngi juddu 1824 à Bangaaj département de Tivaouane bagaaj googu mu ngi taqaloo ak Cilmaxa mu ngi diggante Cilmaxa ak Deqale foofa la maam Aldemba juddoo euh, foofa la nekk euh, ba 1865. mu jóge fa ñëw sanc bangaaj gi ci biir sanc gi it da koo duppee bangaaj ga mu cosaanoo bi mu dikkee daa wul installé biir bangaaj dëkk bi ñuy wax ndindi aan booba nijaayam la fi fekk si ku ñuy wax ibra aan ci jamonoy mille huit cent soixante yooyu ah ba mu fi ñëw euh, dafa dikk waxtaan ak nijaayam euh, ñu koy wax Ibrahima wax nañu ni ca yooyu jamono histoire moo ko indi mu ngi bi muy ñëw mu ngi ànd ak euh, mbooloo mu bari nga xam ni saaru gàddaay ni mag ñi daan def bi mu dikkee fekk na ci nijaayam naar boo xam ni da doon sàkku wërsëg ci ñooñu naar bi gis ko daal di wax ak nijaayam ni ko kii bu ko fi fat ndax boroom mbooloo la te boo ko fàttee dina mujj ba nangu mbooloo mi nga yor ah mu daal di départ ndindi an 1865 yooyu dem dëkk bu ñuy wax Kër Matar Gueye ci côté Pout Kër Matar Gueye mu ngi ci ginnaaw Pout eh, booba mu ngi seeti sëñ Matar Gueye ndax booba am na benn té eh, téere coranique bu mu fay jàngi bi mu dikkee ak mbooloo mi mu àndaloon lii may wax eh, sama baay Ali Yaasin moo ma ko woon nettali ak sama baay Ali yu sàmb mi nekkoon daaru ñoo ma ko nettali ñoom maam Aldemba jur seen baay e, ñoom bokk nañu ci dëkk bi nee na bi ñu jóge dikkee foofu ñu gis sëriñ Matar Gueye wax ko ko sëñ Matar daa di woo waa dëkk bi ni leen kii nga xam ni dafay ñëw ak mbooloo li leen di ñaan mooy bii mu fi duggee ba ba muy génn bu ko kii ayee toggal ko añ na ko kii gi kër toggal reer ci loolal la ne ba nawet ba jeex téere ba àgg ba dëkk bay laataan daj nawet bi yegg na kon Kër Matar Gueye ba dëkk bu rëy la mu daal di fay déparé waat Kër Matar Gueye dellu waat fii ci Ndindi bi mu dikkee e, demaat ca nijaayam Ibrahima mu xamal ko ni ko mënoo sañc fii dangay ngay sañc sa dëkku bopp mu daal ñëw fii ci gent bi ci diggante école bi ak sunu jumaa ji euh, fi la jëkk a def ay mbaar bi fi defee ay mbaar am na kilifa yoo xam ni xajaluñ ko woon ñu ñëw lakk mbaar yi mu daal di jóge te booba sëriñu lislaam la boo xam ni euh, ceddo yi soxla nañu ñooñu ngir ñu di leen ñaanal mu daal di dem bawal booba ba mu demee bawal mu ngi fi fekk ku ñuy wax teeñ ci yaasin ngoone dégén ah, mu boole kook ab ja ab dagam eh, ñu dellusi bi ñu dikkee booba dëkk bi ñuy wax Kër Malick Dieng mu ngi fi ak ndaam keroog bi ñu ñëwee ndaam lañu fanaan bi ñu xëyee eh, dag bi xamal ko ni ko teeñ ni na nga xool foo bëgg ñu ŋatal la fa ŋat mooy xool àll bi fi kenn beyul ñuy gor ay car di limité mbaa ñuy xas ay garab di wax ni fii nga yem fii nga yem bi mu jógee mu ngi jógee fii tàggaloo ak suufus kër Malick Dieng continé ba ca guy sagal gee ca xuru kër yoro mu départ ba ëmb mbayeen mbayeen gee ca wetu cene ba digaloo ak kër may sa njaake góor gi Mor Faali maami bu naama booba moo mooy borom dëkk ba foofee la la la la la ngat wayam tourné ëmb kër Abdou Dieye digaloog Fandeen tourné digaloog Ndindi ci biir kër mbay géey gi soo demee ca penc ma kàdd ga ca penc ma mooy diggu ba ngaa ak ndindi eh, dag ba ni ko boo kii nee na teeñ ni na lii saw ngata goral kenn du la ci fekk mu daal di ànd ak mbooloo mi àndaloon daal di gor sanc ba ngaaj eh, loolu eh, mu ngi tombe hmm, waaw mu ngi tombe ak euh, mille huit cent mille huit cent quatre mille huit cent soixante cinq euh, bi mu sañc goree daal di installé wu fii ci gent bi sañc ñi mu àndaloon mu daal di leen sañcal diggante Kër Demba Ngoy ak Bangaaj ak Euh, diggante Fandène ak Bangaaj mu daal di installé Ndindi Aan diggante Ndindi Aan ak Bangaaj euh, loolu mu ngi tombeek 1867 maam Aldemba daal di installé wu ba 1906 maam Aldemba décédé 1906 maam Malick Soxna remplacé ko mooy doomam ju mille mille mille euh, euh, Maam Aldemba est installé en 1906 ba cent 1946 Maam Malick Soxna maam maam maam Malick Soxna décédé 1946 Maam Malick Soxna décédé en 1946. doomam ju mag Ali Yacine Samb nekk premier fils de Mame Malick Soxna Samb moom it moo installé en 1946 ba 1977 mu décédé le 4 décembre 1977 à 6 heures du matin Mor Yacine Samb di ñaareelu doomam moo jël dëkk bi euh, moom mille neuf cent soixante-dix-sept ba mille neuf cent quatre-vingt-six Aliou Samb ñu koy wax Ali Ndiongaan commencé mille neuf cent quatre-vingt-six jusqu'à douze euh, le neuf décembre mille neuf cent quatre-vingt-deux mu gaañu Aliou Awa di rakku Ali Yacine Samb moom jël mille neuf cent quatre-vingt-huit ba mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mu gaañu euh, Basiiru Sàmb doonoon rakk ci Aliyu Sàmb moom it jël mille neuf cent euh, euh, le trente et un huit mille neuf cent quatre ba octobre 2001 mu gaañu euh, Moussa Samb commencé octobre 2001 jusque euh, le premier euh, décembre le le le le deux mille 2006 euh, Ousmane Samb. Moussa Samb décédé le 20 mille en Ousmane Samb commencé Ousmane Samb commencé jusque le quinze le quinze 15 euh, le 15 novembre 2000 2006 jusque fii nu nekk. maam maam baay Ousmane Sambu mooy chef du village su Bangaaj ma nga Touba nag Bangaaj tey dëkk boo xam ni ku mag yaa ko moom waaye ku ko mën a moom maa ngi fàttaliku ca sama baay ba fii ma nekk ku ko mën a moom man lay jox kilifteef gi maa ko yor may wax ci sa tur di ko ci def lii daal laa doon gën a leeral histoire bi ëpp na lii waaye eh, xat-xat yi dafa bari waaye ñu ngi lay xamal ni daal Bangadj nii la soso nii la tëdde ba fi mu ne it loolee ñu ñu doon def démb ak bërki démb mooy li fi nekk waaw